mais Pod mais lan nga wax ci la le le le vingt neuf Bercy euh, avant Bercy. le vingt huit Tandabér bi nan ngeen ko organiser yéen. le vingt huit ni ko organiser mooy du am benn càmbar càmbar. le vingt huit nag xam nga du final avant final la ci ngay xam final na muy demee la vingt huit ngeen di xam Bercy na muy demee incha allahu rabbi te nee naa le treize day tombé nag dëkk bi commencé féex. lépp génn. waaw soo de yi ñu dencoon manteau génn. soo ngeen kii fu mu taxaw mais tànn bi ci loxoom lañ ko. waaye damaa jëlee la sax Sénégal jàpp sor waaw waaw. kooku la Sénégal la beauté africaine Sora. Bijou Siraba. Bijou Siraba. Euh. ñu def réew mi Sénégal rek fii la yem nekk jéeg ji toog leen de kaay boo leen jeexee xale yi man dinaa waa Côte sora yébe ñun bisi. du ma ko eggali. xale yooyu ñëpp a leen bëgg a gis te ñoom ña pare nee na ñoom nag seen Bercy def na